والقلم وما يسطرون asalaamaaleykum wa rahmatullah bokk julli ñu ngi leen nuyu leen siyaare ci bés tedd bii ñu nekk bésub alxuraan di leen ndokkeel ci coono yi waaye xam nañ ne li leen tax a jóg jaral leen ku muy alxuraan ñu ngi leen nuyu ci turu yaatal mbindum alxuraan ci turu sëriñ bëgg a indi ak cant goo xam ne si dafa war ci ñi seqal liggéey bi muy commission commission commission scientifique mi jiitu ci commission yi ak communication ak organisation loolu moom sëriñ moo ci am kàddoom waaye dama koy tural eh, dama koy limal ñi ko séq boobu moom mu jox kàddoom walla mu ñëw indi ak santam ci ñoom waaye ginnaaw dañuy ànd liggéey bi boobu tey ñu ànd kook ñoom te dara desut liggéeyin bi sell doxin wi sell eh, jëfin wi sel ànd àndandoo gi sell ndax bi ñu ko àndee ba léegi teel ñu ngi ci quatrième eh, édition yi nekk waaye nit mës cee nekk génn ci ñu ne kii ci la nekkoon amugu fi amut mës ñu ne ñii warante nañ ci mës ñu ne nangam jógal ci nangam mu mu joxe ngànt loolu nag war naa mat leeral moom it jël liggéey bi teg ko ci suñ loxo ñu ànd ko ak ñoom ci jiitul sëñ Xaadim Njaay mi scientifique bi ma limee yi rek sant gi moom ci yow la ci yow la aju Sim Sa Jóob Ndar sëñ Sam Mbacke sëñ Mbacke Abdourahmane sëñ Soxna Abdou Wadoot sëñ Amdi Moustapha Diop euh, sëñ Bassirou Diang sëñ Mbacke Sourang sëñ Xaadim Ñang sëñ Maam Balla Sill sëñ Alaaji Njaay Seex Ndindi sëñ Abdou Seck sëñ Muxtaar Kebe sëñ Alaaji Mbacke Jaxate sëñ Saliou Sylla sëñ Saliou Sall sëñ Omar Sylla eh, sëñ Maam Cheikh Ndiaye sëñ Daouda saaxo ak jigéen ñu jàmbaare ñu suñ biir ñoo xam si amaloon bi mu jafee ñoo ñu ko yombalal ndax am nañ fi ñaari édition yoo xam bi ñu demee rek ay kande day jigéen jafe nañu lool waaye bi ñu ci duggee ba def ay tournée ñoom gis nañ lim ñu indil ci seen njiit di soxna maam Awa Dem ak soxna Fawa Mbaye Niang ak soxna Mariam Jaxate ak soxna Diop ñuy ñoom ñoom itam ñu nekk ci commission scientifique bi euh, ak euh, doole ci ay sëñ Sakkan Basir euh, sëñ Sakkan Basir ak sëñ Abdou Khoudoss Silla ak sëñ Moustapha Gaye ak sëñ Mortala Ndiaye xam naa ne mën na maa juum waaye boobaa xanaa dañ koy dañ koy jéggalu ndax euh, li bàyyi ci tur yi ba tey ñooñu itam waa trois waa C3S ñëw seen njiit muy Dame Touré moom dox dëgg dinaa ko bal ak cantam cant goo xam ne si cant kawe la war a doon ndax ak nangu ak coon coono ci liggéey bi li ñu koy teg teg sama loxo lu bari woyofalal na ma ko ndax mu gën ndax woyof gi ma gën a woyof tax na lu bari mu féetewoo ko boole ko akub liggéeyam nag du ci sonn du ci tay fu ma geesoo dinaa ko gis lépp lu ma war defal tam def ko itam tam war koo def euh, bala ma ko wax dina ca nekk kon nag daam moom maa ngi koy maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ñëppay jàmbaar waaye nag moom xëy na sës gim sës ci man tax euh, ak njaam waram gën a euh, gën maa ma gën ca ràññ ko ci ci commission bi bi mu jiite moom itam mu ànd ko ak sëñ Mamoun Fall Euh, ak euh, sëñ Mamoun Fall ak sëñ Mouhamadou Dieng sëñ Mouhamadou ñoom moom moomu nag Mouhamadou Dieng ba tey ñoom te noonu lañu amuñu tayel amuñu sonn ba tey euh, sëñ maam Thierno Wade yaakaar naa moo tam ci liggéey bi la bokk xam tudd ko waaye ba tey moo tam ci mi ngi ciy góorgóorlu bu baax ak sëñ maam Balla Touré xam naa lim dafa jafe waaye ku ma tudd rek. xamal ne moom bëggoon naa su tur yegg si ci moom mi teg liggéey bi suñu loxo ba xam ne yéen yéen ngi ci liggéey bi ku mu ci tudd ma maa ngi koy jégalu la ma ci teg rek moom mooy sama cantu bopp googu maa ngi koy sant maa ñoom ñëpp maa ngi koy sant euh, waaye euh, sant nag sëriñ mi jël liggéey bi teg ko sama loxo ci doyloo gu ma doyloo te ma xam ne man doyuma xam naa ko bu baax ndax euh, dama ànd ak jàmbaar rek ay jàmbar nag boo ànd ñoom loo def rek day mal ne def nga dara waaye fekk na booba euh, sa def daf bëriwut waaye doyloo gi ma doyloo ba teg liggéey bi sama loxo ñoom itam ñu xam ci sama yéene tax na fu ñu ko foogee rek liggéey bi weesu liggéey bi da koy weesu amuñ ci ak tayel amuñ ci ak yox-yoxi kon nag sëriñ man maa ngi lay sant cant goo xam ne si yaakaar nga yaa war a sant waaye man dama yaakaar maa la war a sant ndax man lii day lu ma war a nekk loo xamante ne si ñun ñëpp muy man muy yow xam nañu sunu ndono la ak ñu ak ñu fi teew ñëpp kon nag bu li amee nga teg ma ci kanam ne ma toppatoo leen ñoom yor liggéey bi dama yaakaar cant gi ci man mii la war a jiitoo doyloo gi ba nga ko teg sama loxo da nga ne ma lu ma ci laaj dara bu ma ci bu ñëw di ma ci wax dara nga xam ne maam suuf année bu année bi jeexul rek jéem moo xam na mu demee loolu itam xam naa ne soo maanaam du ma ko def kon nag sa jukko ju rafet jooju nga àndeek man ma àndee ko yow te yàlla rek tax ak Guinée ginnaaw bokki doog a ñëw maa ngi ci maa ngi lay sant bu baax a baax wax nag jafe na ma waaye xam naa ne sant naa bu baax nit ñi léegi ñu ma yërëm sax naa ma liggéey bi diis diis waaye doyloo gi ak kóolute gi ak ñi ma àndal ñu sawar ci tax na amutul may ci yëg guddi ak bëccëg su ma sonoon ci laay nekk rek ndax xam naa ne nekkuma ci lu ko gën kon maa lay sant cant gu wax nga xawma fu mu yem fi mu laa xam waaye xawma fu mu yem asalaamaaleykum wa rahmatullah kon maa wax seen Cheikh Gueye mu ñëw indi kàddug sëriñ indi ko mbooloo mi doon liggéey liggéey bi ñu ànd ko ak ñoom sëñ Oustaz Cheikh Gueye comme maa ne mu yegsi jërëjëf jërëjëf Baye Fallou Seck moo jiite liggéey bi ni mu ko waxee waaye kàddu yu rafet yooyu nga xam ne indi na ko ci euh, liggéey bi ak ñi nga xam ne ñoom la ko seqaloon sëñ Mbàkke xam naa ñi ngi ci jeexitalu jotaay bi mm-hmm. ndax di njëkkante ak waxtu wi waaye ni ko Baye fàllu waxe bi muy daanelee ki nga xam ne mooy euh, imaam Cheikh Awa Balla Guèye mm-hmm. euh, dana ñëw balay ñëw sëñ Jili Ñang dana jukki lenn ci délégation yi nga xam ne moo desoon ci ñu teew mm-hmm. ndax boo tàmbulee lim am ñoo dem ba ci ñoom jël seen i tur jaadu na nga suluña leen te ñu doon ay kilifa ba ñu yëg ne seen teewaay teew nañ fi bu daane lee ñu jox euh, Cheikh baal la mu yëkkati kàddu yi alaaji sëriñ bu ko defee ñu dem ci li ci topp bisimilah. baax na waa sëñ alaaji bisimilah sëñ alaaji dafa ñaan benn kàddu la. sëñ alaaji. waaw bësal micro bi waaw mu tàkk. ah sëñ Fallou da defal ay kii waa taalalal sëñ alaaji micro bi ba tey liggéey bi maa fàtte ñu ko séqaloon ba tey te te am ci solo te tudd ñu leen muy jigéen ñi nga xam si baax na ci nge ci ci ci gaa yi ngéen yi ak ak seen daara yi nga xam si moom kalaw seen xaalim bi ndax fu ñu demee rek euh, li ñuy féetewoo da nga cee góorgóorlu seen kamtalaay kàttan ku mel ne soxna Fatim Mbàkke mi ne Dakar waxtu ñu amee réunion rek xam naa ne li gaa yi bëgg moom mën na ko indil gaa yi kon na ñoo koy sant bu baax ak soxna maam ci la muy féete fii bu ñu demee Touba itam ku mel ni Dame Touré dana wax léegi waa këram lu ñu fay jëfandikoo moom itam ca ca moom ci ñoom la ñu koy jaaree ñoom ñëpp ñu leen sant ñooñu kat dañ cee bokk. jërëjëf jërëjëf. Ah, waa sant itam. Mm-hmm. ñoo leen sant bu baax a baax. jërëjëf Seck asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf bisimilah sëñ Jili. waa kañ jërëjëf eh, sëñ Jili ñaŋ bu Kër Ñang sëñ Jili Ñang sëñ Daara fii ci Ndakaaru waaye sëñ Jili Ñang itam di ñu Grand Prix Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ni ñi ngi waajal première édition bi ren ci alxuraanu karim mi ngi ànd ak sëñ làmp Diop ñoom it eh, ñi ngi ci jataay bi eh, ki nga xam ni nag mooy soxna Ndey Jàlloo na suba couture moom moo ñawal sunu kaang fóore yi ba noppi la mu waroon fayu xaaj bi lan ko jox mu ni day jàpp ci bés bi ñu ngi koy sant bu baax mi ngi fii ci immeuble Touba Sandaga waawal faj li itam dañu yebal oustaz Assane Diouf di ku baax moom la DG Euh, sëñ Cheikh Ahmed Tidiane bu sëñ Sidi Lamine moom la yebal mu ñëw euh, sëñ Modou Khayra Niang moom it euh, ñëw na sëñ Abdoul Ahad Diouf ñëw na ñoom waaw ñoom ñoo teewal daayira mu xadamatul xidma ànd ak sëñ Abdoulaat mu sëñ Baara sëñ Mbaye Diouf Dia moom it mi ngi fi taalibi Cheikh Mouhamadou Mourtada sëñ Alaaji Balaay Ba moom it mi ngi fi sëñ Maam Góor Sëy mi ngi fi sëñ Moustapha Lo moom it eh, mi ngi fi sëñ Abdou Ndiaye moo teewal Baye Souley Diagne moom it mi ngi fi eh, ki nga xam ni itam ñooy waa Touba ci kanam tuddoon naa leen léegi sëñ Mor Solang mi nga xam ni moo leen représenté eh, fii ci Ndakaaru ñu ngi fi Mouhamadou Omar Cissé représentant sëñ Mansour Cissé xalifa baay Amad Cissé Pire mi ngi fi alaaji daam baabu sàndaga mi ngi fi euh, sëñ Mamor sekk ci waa kër Baye sëriñ yi ak sëñ Modou Bassine Seck ak euh, sëñ Mahmadan Seck ñoom ñëpp Baye Serigne ña ngi leen di sant bu baax a baax sëñ Abdourahmane Silla kazalika naka noonu sëñ Àll Seck waa jaamal itam sëñ Babacar Cissé ak Papa Seck ñoom ñoo teewal xalifa bu maam Abdou Cissé ñi ngi ciy jataay bi sëñ Aline Badara Seck moom it ñëw na euh, sëñ maxtaar Kare moom it ñëw na Masamba Diop bu Jamra moom it mi ngi fi di ku baax euh, kazalika naka noonu délégation bi nga xam ni ñoom ñoo jógee ci la Dramane sëñ Fallou Silla ak sëñ Jili Silla ñoo leen teewal délégation sëñ Mor Xari Si ak sëñ Modou Bali ba sëñ Modou Si ñoom it sëñ Fallou Si ñoo leen euh, teewal sëñ Bakke yaakaar naa ni loolu moom mooy yi nga xam ni moo desoon ci délégation yi kon ñu jébal kàddu gi ki nga xam ni mooy euh, sëñ euh, Cheikh Awa Balla Gueye anta bi ni'mati rabbika bi majnun